dafa encercler assemblée mais duggul yow naka nga mën a toog pour l'élection d'un président tu fais rentrer l'armée du Sénégal dans dans l'enceinte de l'hémicycle lu tax te ñun lenn rek la ñuy def rek appel au règlement waxuñu fi leneen à part à part appel au règlement te su ngeen gisee ci vidéo bi am na fu ma jëlee micro bi lu tax ma jël micro bi ma ñëwaat ci présidente bi ma ne ko ah, madame la présidente non il faut rester non. la procédure mooy bi Cheikh Seck di wax euh, Pape non damay laaj ndax mooy bi ngay wax noonu Pape le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mooy suñu alxuraan mooy suñu bible. oui dañu ne suñuy installé président assemblée nationale. amuñu beneen débat bu mën a am ci assemblée. mën naa jot kii bi. am bés règlement bi. Mhm. allez-y waxal maa lay dégg. non continué. non non mënu ma ko xool di ngay di di kii li ma ci bëgg a xool. naa la ko wax après li ma ci bëgg wax naa la ko wax après. non mais kon je te laisse d'abord consulte d'abord le règlement après tu poses ta question. non dama ni. vas li ma la bëgg a mooy. <clears throat> article cinquante da nga ni liiral article 51 début du mandat article mi ngi page 34 article 51 page 34 bon début du mandat d' abord ça c' est ça c' est d' abord. loolu dafa am polémique xam nga loolu dafa am werante début du mandat bi xam nga werante bi ci am. Pape Pape Pape on parle français. ok installation. ak ak entrée en fonction bokkul nee nañu entrée en fonction. bés bu conseil constitutionnel di proclamer les résultats définitifs à partir de ce jour-là en fonction. Mmh. mooy lu ñu amoon assemblée nationale danañu ne su soo entré en fonction am nga juróom-ñetti fan mhm. ñun ñu dem sàkku ci moom le respect du règlement mais femme bi gantuñu. liiral article 53 police mooy ngi page 36. Mhm. liiral article 53 57 ak 59. Assemblée nationale, quand on parle de personne, on ne parle pas de député. Et chaque fois qu'on parle de député, on mentionne le nom député. fii dañu ne président Assemblée nationale la ñu wax waxuñu président de séance dañu ne président Assemblée nationale am na sañ-sañ génne bépp personne bépp doomu aadama buy def lii wala buy def lii wala buy def lii. man ci Assemblée nationale je ne suis pas une personne je suis un député. donc amul kenn depuis di nga gis nga gis. xoolal fii demal demal article demal demal article cinquante neuf page trente six ñu wax la député bu jalgati dañuy commencer un dem deux dem trois dem quatre te président balaa muy jël décision da koy soumettre à la plénière plénière mooy décider est-ce que député bi dañ koy suspendre pour la durée de euh, de cette commission en fait comment euh, comment dirais-je encore de ces travaux là ou pas mais président assemblée nationale ce n'est que d'abord qu'un député C'est un député qui a été choisi pour présider l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale du Sénégal est une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée. te scrutin secret mais scrutin secret lu tax ma ne la lii dañ ko nar a modifier parce que ils n'ont jamais pris en compte assemblée noo doon ñëw am ñett ba ñeenti candidat moo tax ñu ne assemblée su ñuy président ñetti bulletin rek moo am bulletin candidat bi weex la soo ko bëggee votel da koy votel weex. Mhm. soo ko bëggee votel nga sa nga votel ko bleu. Mhm. soo bëggee màndu. nga boole ñaari bleu ak weex waaw maintenant. Mhm. fan la règlement wax su amee ñetti wala ñeenti candidat nu muy demee waxu ko waxu ko fenn moo tax ñu ñëwoon daf leen proposition ñu ne leen comme fii ñu mënul bind ak ñu mënul lire dañ fi xaw a bëri et la preuve règlement bi nee na su ñuy fal le président de l'assemblée doyen d'âge buy yéeg waxuñu day nekk doyen d'âge day nekk doyen d'âge bu mën a bind ak mën a lire. su ñu demee ba ne bind ak liir dafa am lu tax ñu ne bind ak liir. Mhm. ñu ne ñuy toog ak euh, président de séance boobu day nekk ñaar ñu gën a féetoo ndaw mais tamit ñu mën a liir ak bind. Mhm. waaw maintenant assemblée nga am fa ay député mënuñu liir mënuñu bind. yow naka nga mën mënee jóg jël benn bulletin bind ci turu xaw ma waa ji Diop xaw ma naka bind turam jël soi-disant suma bos bind suma tur bosu Ahmed Aïdara nga bind turam bosu euh, Lamine Thiam bu PDS nga bind turam waaw maintenant damay laaj. waa ku bëgg a abstenir ban bulletin lay jël ku bëgg a contre ban bulletin lay jël. d'accord moo tax ñu proposer leen comme suñuy fal ay maire wala ay président conseil départementale dañu tànn ay couleur ok te loolu amul fenn fu ko règlement intérieur di dàqee. d'accord ñoom ñu taxaw ne couleur du am. ok ñu ne leen lu tax ñu ne na ngeen na ngeen jël couleur. parce que ñun xam nañ que ci biir assemblée bi am na fi benn député bu fi am ay procuration pour quatre-vingt-deux députés. te tegu ko ci yoon parce que même pour procuration yi mais. xoolal page 53 lépp boo ko bëggee expliquer dafay ko non mais. non parce que il faut nga comprendre ma aussi xoolal. non non déglu ma Sénégal xamuñu ku tooñ. ok ku fayu la ñu xam. ok xoolal s'il te plaît. dernier dernier article bi laay wax xoolal article 88 page 53 nee na pour que Barthélémy Dias jox papp ngañ procuration Pape Ngagne votel ko Barthélémy dafa noor a feebar. indi preuve que dafa feebar wala Barthélémy tukki. mais naka la Barthélémy Dias ma a nekk ci assemblée nationale toog Pape Ngagne di voter à sa place fan la am. d'accord léegi Barth xam nga li nga wax nii. fan la am non xam nga ñoom loolu mën nañ ci tontu mais li ma bëgg yow nga tontu ci. non dama bëgg yow nga tontu ci non non non non xaaral rek loolu ñoom dinañ ci tontu non ñoom ci ont violé la ah, ont violé la loi. mais Barthélemy. waaw ñoom dinañ tontu ci loolu. duñ ci nga tontu ci li lay wax. li nga wax. li nga def yow. par exemple loolu ñoom bu ko defee. lan laa def non non. damay laaj lan laa def taxaw foofu di xatraay di xëcc ay micro di ko yóbbu war nga def loolu. loolu laa la laaj. xëcc micro. ça c'est rien du tout ça. buddi micro. assemblée nationale foofu en tant que maire de Dakar nga ni ma seen rien du tout. lan lan mooy waxu maire de Dakar yow ngay taxaw ñuy violer la loi devant tes sous tes yeux nga may waxu maire de Dakar kon yow da nga bëgg wax ni nit tey nga nga jégal ma ci kàddu yi quoi ça di dire que tey suñu waxoon am na kuy dugg kër Barthélémy Diaz noonu de siif jabaram damay tere ay maire Dakar loolu may ban wax dama ne nañu bàyyi waxu naa fekki te wax wax ji kan moo violer la loi man balaa may nekk maire de Dakar je me battais dans ce pays là je me suis toujours battu musuma suma pap musuma xeex su ma yaay musuma xeex pour suma ay doom su me suis toujours battu par rapport à mais convictions pour le peuple sénégalais te assemblée assemblée nationale dama ko wax ci les rangs Papa Ngagne commencé gul sax xeex bi commencé gul dinañ ko teg ci yoon ñëpp a toog teg ci yoon ñu wàccee yoon ñu won leen nag lii di ful ak fayda c'est tout parce que ça va pas continuer. non non Pape euh, Pape Barthélémy Pape Macky Sall est minoritaire. d'accord Barthélémy Macky Sall déglu ma rek Pape dafa am dafa am fu Macky Sall jaar ak ñun. Macky Sall dafa njëkk a suñu liste titulaire teg ko ci jaay doole Macky Sall dellu siwaat ñu dañu naan élection. bu ko de bu ko tegoon ci doole yow sa liste Dakar dina dem. Pape non dama ne bu doon loolu ngay wax noonu éliminer éliminer. Pape lan moo yóbbu sa liste Dakar yow. Pape parce que yow mës nga gis ci dëkk bi. élection ñu ne le titulaire day bokk du bokk wala suppléant mooy bokk du bokk. Pape fan nga mës a gis coupe d' Afrique des nations wala coupe du monde ñu ne titulaire mooy joué amul amul remplaçant wala ban remplaçant mooy football mais titulaire amul fan nga ko mës a gis fan. fan je t'écoute fan et tu ne peux pas avoir une liste titulaire sans une, une liste suppléant mënul nekk mënoo am suppléant te amul titulaire mënul nekk la liste de Dakar on on était dans notre droit man ba may DGE. je suis dans mon droit amul fenn fu ci code électoral que une erreur matérielle amul fenn fu ñu ko bind ci code électoral amut. d'accord donc su ma la déggee li xew assemblée nationale Guy Marius Sagna def ko Barthélémy Diaz def ko da koy assumer amul dara loo ci regretter. commencé gul bi commencé gul. mais dégg nga li président de la république wax ci discours am. Pape non président de la république dégg nga li mu wax ci discours am. président lay tontu. ñaawteef yooyu am ci assemblée nationale. waaw dootul nangu muy am ci assemblée nationale. ñu ngi koy xaar moom. ok moom ñu ngi koy xaar moom déjà moom président nag commencé d'abord di compter lu ko fi dese ci ay fan. c'est 15 mois et qu'il arrête di fooy xelam soi-disant day menacer ay nit président mënu fi menacer kenn tu vas pas être minoritaire dans ce pays la peur se lit sur ton visage la peur se lit sur ton visage ngay fooy sa xel. dama ne la session démarre dund bi incha allah dina wàññeeku affaire bu licence de pêche pour nappkat yi dinañ ko ci yoon maintenant Macky Sall noo xool comportement opposition bi ñu ngi xaar Macky Sall. déglu ma rek am na si xalifa am na si xalifa Karim. xoo euh, man de je parle d'abord du peuple sénégalais le problème politique on le réglera après dund bi dafa cher. Euh, non non non. ma ñëw rek mais Pape. mais mais bon Pape maintenant qu'on continue à faire l'émission parce que tu ne laisses pas les gens dérouler c'est ça. continue c'est pénible quoi. continue. par respect aux Sénégalais du ma la wax ce que je pense de Macky Sall. rien ne changera à l'Assemblée nationale ba ñu xool nag moom lan la ci mën lui et son soi-disant ministre de l'intérieur et sa marionnette de président de l'Assemblée nationale ñu ngi ñu ngi leen di xaar ñu xool fan la ñuy fële ak qu'est-ce qu'il peut faire ñu ngi leen di xaar fii c'est pas une garderie d'enfants c'est la République du Sénégal c'est l'Assemblée nationale du Sénégal kenn nommé wuñu du décret on a été élu Macky Sall se prend pour qui pour taxaw télévision dina ay woyi li su ngeen ko defaatee dinañ ko defaat soo wàccewaat yoon ñu defaat ko ba ñu xool fan lay mujjee. waaw ah, mais fi mu mujjee gis nañ ko. assemblée nationale waaw. bi bi bi bi force bi euh, sécurité bi ñëwee. Ah. mais lépp dafa jaar yoon. dafa jaar yoon. mais bien sûr. ah tu crois. ah mais moo fa jaarul yoon. un président de l'Assemblée nationale élu avec moins de la moitié des députés yow nga dafa jaar yoon. ah mais jaarul yoon Pape Pape fais tes commentaires et je te laisse avec tes commentaires. non da ngeen di. pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal Sénégal amul président Assemblée nationale. vous avez une marionnette à la tête de l'Assemblée nationale. parce que député moo nar a fal président Assemblée nationale du koy fal. il a été élu et installé par la gendarmerie nationale man je suis député candidat déggu leen suma tur kenn woowu ma sax pour mu ñëw voté kenn woowu ma ba ñuy woo Abbas Fall bu muy yéeg dañ ko téye nga ne ma poku président assemblée nationale ban président ban président l'assemblée nationale n'a pas de président on y a installé une marionnette au service de Macky Sall maintenant nag di ci kanam